del déglu del xool Feeling Dakar site bi jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Dakar di am info yu waaw lu waral ma ñëw si xew bi c'est facile parce que Fatel sama rakk la yàgg naa man maa ko njëkk dugal si milieu bi man maa ko maa ko doon guidé déjà que sa ça fait plus de 15 ans maa ngi si milieu bi donc maa ko tekkee ba mu nekk tey li mu doon donc tey suñ ko waree takk man fierté la si man quoi parce que loolu moo nekkoon sama rôle tuteur am laa maa nekkoon tuteur am légal donc xam nga milieu bi dafa nekk milieu boo xam ne dafa doy waar quoi soo si nekkee te amoo koo xam ne moo la si jiitu teg la si yoon rek mën nga def erreur yoo xam ne sa life dootoo ko mënati réparer te sant yàlla dugg na si milieu bi ba tey ñoo ngi koy takk te ki koy takk tamit nekk koo xam ne si milieu bi la nekk ngaa ko blende c'est pas du ma ne ay xarit lañ man ak moom mais xamante nañ et on se Euh, du respect jox naa ko respect ci liggéeyam jox na ma sama respect ci man li may liggéey donc euh, voilà dama ko ñëw taxawu à tant que frère euh, dimbali famille bi si organisation bi loolu moo fi sama ko. tant mu nekk sa petite sœur dugg ci li nga xamante ne moo di néegu sëy du lu ndaw. kon donc boo koy conseillé tey jii lan nga koy doon. xam nga loo gis rek tolluwaay la ko ba muy nekk xale di bëgg dugg si milieu bi. am na lu ma ko doon conseillé mooy na nekk jigéen bu am jom na téye boppam na bañ a dugg si yenn yi ba bis bu ko yàlla di may jëkkër parce que tey moom mooy taawu yaayam donc euh, sëy bu muy dugg nii nee naa ko sa vie day changé en plus euh, sa vie déjà c'est déjà exposé sur les réseaux sociaux donc xamal ni sa néegu sëy aussi gars yi dañ lay topp donc c'est le moment nga gën a prudente le moment nga bën a gën a bàyyi xel si li ngay def conseil bu gën a important bu ma ko jox ma ne ko tey euh, Ngaaka moom mooy sa kilifa moom mooy sa jëkkër donc moom nga war a déggal nga xam ne nekkatoo faateel bu nekkoon faateel bu libre bi léegi jabaru jaamoon nga Ngaaka sa nga nekk sa xarit nga nekk sa confident na doon sa kilifa man loolu laa ko conseillé en tant que frère parce que néegu sey dafa garaaw néegu sëy lu si nekk yàlla rek a ko xam donc compréhension si amul ak muñ day métti conseil boobu laa ko jox ba Ngaaka li ma koy dénk mooy euh, euh, avant tout na jàppee euh, Fatel comme rakam na ko na ko tete xam ni xale la xamul dara 21 ans rek la am xale bu ndaw la donc tey soo jëlee xale bu jigéen si ay waajuram nar ko indi sa kër donc yow yaa war a njëkk a moom mooy góor moo war a njëkk a moom moo ko war a yar moom moo ko war a mottali moom moo war a tax mu mën a màgg doon kilifa si réew loolu daal laay dénk ngaa ko jox nañ ko suñu suñu rakk suñu doom suñu xarit nañu ko toppatool ko ñu fekk fi koo xamante ne nag euh, yaakaar naa kenn dootu ko présenté parce que mu ngi def lu am solo euh, ci fële nga xamante ne moom moo di maison de production bu mag ba di mbaroo di muy ki nga xamante ne moom moo di Maïcha borom chérie Virginie Maïcha nuyu naa la ziar la ci loo nekk. maa ngi leen di fay merci beaucoup maa ngi leen di fay bu baax di leen jaajëfal. yaa ngi am jàmm bu baax a baax. maa ngi ci jàmm. ok Maïcha tey nga ñëw accompagner sa sisters euh, sa doomu nday ngeen bokkandoo woon li nga xamante ne moom moo di chérie Virginie tey nag yàlla may ko borom kër muy féete mu sant sentir la ci bisam parce que démb ba léegi yaa ngi fi bokk ci li nga xamante ne moom moo di ote sa relation ak euh, Fatel ba tax tey nga ñëw jàppale ko ci bisam bi. waaw parce que nit ku baax la dafa ma jël daf ne ñu magam ñu ñu magante bariwul. mais jox na ma cër bi jox ma place mag donc c'est une obligation pour moi tey jii jour bu toll nii ma ñëw accompagner ko partager ce jour merveilleux avec elle. tey boo ko doon conseiller di ko dolli lan lay doon en tant sa mu nekk sa petite sœur. mu gën a góorgóorlu rek mu gën a góorgóorlu fu teg tànkam foofu la incha allah li si kanamay dàgg. lan ngay dénk seen chéri kii di Ngaaka. Euh, seen chéri kii di Ngaaka lan nga ko yan kàddu nga koy dénk. ah mu toppatoo ni seex bi rek mu conseillé ko mu guidé ko mu jàppee ko ni rakkam et voilà. ok est-ce que nekk célébrité euh, ba pare dugg ci lu yomb la tey euh, naka ngay conseiller ki nga xamante moom moo di Fatel mu dundee ko pour mariage am a demee comme mariage célébrité yi ñu fiy dégg. Euh, mariage moom euh, difficulté yi pour ñëpp la amul célébrité amul ñàkk nekk ñàkk doon célébrité pour ñëpp la je pense que mu gën a góorgóorlu rek en plus yàlla may ne ko ay nit ñi nekk ci ginnaawam di ko conseiller di ko soutenir di ko wan yoon bi incha allah ça ira. est que mën nañu xaar tamit bientôt <laughs> cycliste du pèlerin bi laa bëgg de ci Feeling Dakar tu es en couple oui ou non. Euh, oui je suis en <laughs> ah mën nañu xam kum doon. ah non. ñaanal leen ma rek incha allah. kon yàlla na la ko wàll lan ngay tàggatoo. amiin amiin merci beaucoup c'est tey ji euh, ki nga xamante ne moom moo di Fatel nekk sarak ñu di ko euh, defal li nga xamante ne moom moo di xewam fii tey lan ngay wax euh, ki nga xamante ne moom moo di sarak ak ban yëg-yëg yi nga am. waaw kontaan rek kontaan naa trop ndax mérité na ko parce que xale bu baax la xale bu yaru la dëggal ay waajuram la. sama xarit la nag sama rakk la sama xarit la. mu muñ rek mu muñ rek comme ñun magam yi nu ñu def mu muñ rek na xam ne sëy moom neexul waaye bu la yàlla booleeg sa jëkkër léegi nga muñ rek jàppale ko. tamit nekk artiste tamit yombul dund dund artiste yombul mais na muñ rek def comme magam yi rek sey rek ba jeex ba jeex ngaaka waaw waaw maa ngi koy nuyu maa ngi koy nuyu bu baax tamit di kontaan tamit ci lim ko takk ci sunu rakk ju baax jooju mais tamit dañ naa ne ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ nañ góorgóorlu parce que bu ñuy booy soog a dugg ci sëy da mi ngi mel ni yaa ngi soog a dugg ci àdduna bu bees mais góorgóorlu rek ak muñ moo la siy génne or comme ni ma la ko waxee woon rek nee naa nee nañ bàjjen moom moo di bàyyi ñu fekk fi ki nga xamante ne moom moo di bàjjen ci ki nga xamante ne moom moo di Fatel kon nag a uh, way juróom la uh, donc uh, bàjjen ñu ngi lay nuyu di la ziar di la kontaane lu bare bare maa ngi leen di fay di kontaan ci yéen yaa ngi am jàmm bu baax a baax maa ngi am jàmm sant yàlla bu baax ngay joxe ki nga xamante ne moom moo di sa doom yan ah. kàddu nga koy dénk waaw maa ngi joxe sama doom Fatel Sow baayam di siidaati te nu doon ànd ñoo bokk cosaan mbaay bi sama mag te dafa noo bëgg te nu xamante dipp bi nekkee xale lu baax rek lañ si ay famille eh, papam ak famille yaayam xale bi tam muy ku baax jëkkëram tam nuy dégg si moom lu baax wax dëgg yàlla kon maa ngi ñaan yàlla yal na leen yàlla boole. sëy bi yal na barkeel. yàlla na barkeel. yal na barkeel nu naan bàjjan lañu bu doon sunu sago daal yàlla nañu sëy rek ba seey te yàlla nañu jur doom yu barkeel. bu loolu passé nag bëgg nan nag jëkkër ji xam nu xam nuy si nu nun ruuti buun lan dëkk waaw loolu rek lan doon ñaan jaaraama jaaraama <laughs> wonde eh, salmina koreji mbeɗa salmina mojjog mawnam kama kama sidaji jiidi baaba min komi min guel mumen tan ademba joor e galluɗo mawnam o jaahaɗo heccegge mbeɗa ñaagui allah dewgal ngal yo allah waɗa hen barke yo allah waɗa hen barke de koɓe moƴƴuɓe dal